asalaamaaleykum salaamaaleykum na moon Chacha maa ngi nii

ay marque de classe comme par exemple gis yoo xamante ne ay Zara la et tout sa ay chemise de classe ak dàll yi ma gis tamit aussi léegi dama la bëgg a dama bëgg a laaj benn question nan la ñuy dundee ak waaw xam nga fii nag moom euh, kii marque lañuy jaay ku dem tamit ku dem ku jënd benn yoon boo demee di nga ñëwaat marque muy dàll muy chemise costume du lép marque la fii waaw mami dama gis yenn sac de classe sagi grande dame yo xamanteni yi dem ay soirée ay mariage dama bëggoon nga ci ben ñu

ñëw fii mu jaay la ay marque yu baax yu amul fenn loolu neex na boo bëggee dem soirée wala nga am kii bu la bett boo ñëwee costume yaa ngi fi lépp ngi fi. kon boo bëggee dem soirée wala mariage jarul ngay déplacé wu di ñëw. livraison à domicile boo wootee rek wax li nga bëgg soxla rek livreur bi indil la ko directement. ah loolu de neex na dégg ngeen loolu. nga jot sa commande. incha kon kon dégg ngeen loolu. kon xale jigéen yoo xamante ne ñuy caw sa xiir ñoo ko gisandoor ku bëgg yu baax na ngay ñëw fii ci Pafay Pafay daal la ñu wax. fi près du chez Mbaye Gueye Faye fii ku bëgg yu baax lépp a ngi fii loo xamante ne leen jaaxal ay parfum de classe ay montre lépp ay Zara et tout ça ak yeneen ak yeneen. ak yan encore mu xool montre classe waaw montre de classe yi ñoom ñu ngi fi. ok ak verre yoo xamante ne. ak lunette yi ok pour pour góor et pour jigéen yëpp. Mhm. am na ay joor. génneel ma ñu lunette yi mami ma xool lunette ci. nga woon suñu télé téléspect ah, lu moom photo gré la anti reflet mhm. baax na pour soleil bi ak machine boo nari ci machine yi tout ok du gis ngeen xool leen lii sama moroom xale góor yi xale jigéen ñi laay waxal gis ngeen verre yi mun nga xoolal baax na ci naaj baax na lépp day protégé wu say bët gis ngeen lii ëpp na ku bëgg yu baax daal fii ngeen ñëw ñun pas fay la ñu wax an encore mami am na ay sac antivol mhm. Euh, sac bi dafay ànd ak clé USB mhm. ak écouteur aussi koy sac antivol la am na ay caleçon aussi mhm. caleçon xale yu góor yi caleçon xale yu góor yi pour tàngoor bi am na ay montre ay porte porte monnaie ah, porte monnaie en cuir waaw porte monnaie en cuir la aussi gis ngeen lii porte monnaie la en cuir hmm. ak lan encore waaw am na ay cravate cravate ak na papillon yu xale yi xale yi yu góor yi xewal xale waale yi na ay carax aussi gis ngeen pare leen été baa ngi nii di ñëw nag am na mocassin yi aussi waaye jël leen lii ëpp na waaw lii xoolal lii ko bëgg a caw saxiir xiir rek fii boo bëggee am yu baax yi wel ma comme la wax fii ngay ñëw fii moo ko yor daal ku a sañse daal lépp ngi fi. lépp ngi gis naa fi tam ay gis naa fi ay sac. sac yoo xamante ne dafa ànd vax lañ ko defaree. ok léegi. am na ay mayo aussi. Mhm. am na club yëpp mayo yi moom am na club yëpp. am na club yëpp club yëpp moom. ok d'accord léegi mami mhm. lan ngay wax lan nga ñuy dundee client yoo xamante ni. lan nga ñuy dundee ak seen client. waaw fii nag moom amuñu problème ak client yi. Mhm. Euh, ndax dañ leen di satisfaire. gi ngay gis ku ci dem tamit di nga ñëwaat ku ci jënd tamit di nga ñu boole ak ñeneen ndax comme moom ñun wóolu nañ suñu bopp marque la jaay ak qualité aussi. Mhm. mami léegi kan moo leen bëgg contacter si seen numéro léegi nan lay def. waaw ñun suñu adresse mooy ñi ngi Sacré Cœur 3 ginnaaw boulangerie jaune ak à côté de chez Mbaye Dieye Faye ku ñu bëgg contacter aussi mun nga ñu woo si 77 555 21 67.

boo jegee sa moroom caw sa xiir rek la ñu wax ah noonu la ko mbër bi waxee non Ama Baldé caw sa xiir daal la ñuy wax moom la ñu wax ku bëgg a defante yu baax da nga ñëw fi ci Wélma kom comme nu ñuy def lu dul du dee ngeen ñoo ko gisandoor kon xale góor yi bëgg lu baax ñoo xamante ne ñoom ci defante la ñuy def ay ay caw sa xiir yu kenn xamul waaye man mi dafa am ku ma gisi porte bi mu ñëw de ko waaw kii de Mouhamed Diaw lañ koy wax ñu mën a

nañ kon nañ koy wax nànk. mais ma nag la prochaine fois su ma ñëwee dal lii ak. sànni waaw xoolal lii mu tudd si. jëleel lii man nga xam ne ci yi dox ci yi laay wër gis ngeen ëpp na xale jigéen yi bëgg lu baax xool leen ku bëgg yii de fii ngay ñëw de welman

Du barrière mooy sañse xool ma fu ma mën a gën a gën a la xam nga lu ci yére yi man nii la xool ma ni ma trois pièces jàppee te du ma ci bi drame dal may jëm mag bi delu xaale yow foo may jëlete Suma ne neexee ba santo def plastique chapeau dugu a call, laa am classe ma nekk ci sa xol ndax baby xool ma duma moromu gone bés bi tey la dinaa la woon fi my money di solu ni mannequin jack ni jack, di daagu ni diriyonke musóoru ni juma jack, jekk defuma tase sama cheveux doon sa Beyoncé kaay jege ma ñu snap selfie kaay ñu jël ay photo Aduna ya gis ko lii ak war ci maamo yow xale bi